qu'est-ce qui se passe quest veut faire Ousmane Sonko wàcc na ci otoom Ousmane Sonko en ce moment wàcc na ci otoom gis ngeen chef de protocole boobu nekk ci ginnaaw moom Ousmane Sonko wàcc na ci otoom en présence de ses avocats mais également en présence de la GIGN Ousmane Sonko ngi noonu wàcc na ci otoom avocat certes kii di maître Bamba Cissé mi ngi fi waaye gis nañ également gis nañ également maître Bathily waaye également fi ñuy waxee ak yéen nii gis nañu ki nga xamante ne moo di président Ousmane Sonko mu mel ni ku bu am lu muy lijjanti ci otoom gis ngeen ko noone sa gën a lay waxal lan lay wax nous savon savons pas day dem wala demul nous savon savons pas mais du ñàkk di ngeen ci am lu leer léegi léegi léegi parce que président Ousmane Sonko wàcc na otoom fi mu wax ak yéen nii mi ngi wax ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa GIGN président Ousmane Sonko wàcc na ma ngay dox ma ngay dox di dem moom président Ousmane Sonko fan la jëm kenn xamul est-ce que day dem wuyu ji kenn xamul Ousmane ma nga noonu di dem ma nga noonu di dem moom président Ousmane Sonko changé na oto dugg na ci benn oto benn Mitsubishi bu weex moom la président Ousmane Sonko dugg fan lañ ko jëmee kenn xamul mais ce ki est clair mooy changé na oto est-ce que day dem directement tribunal est-ce que këram la jëm quest ki qui est de tout ça nous ne savons pas mais Ousmane Sonko nga noonu daal changé na oto oto bi mu dugg oto waa GIGN la oto bi mu dugg oto waa nguur gi la lan lañ koy def fan lañ ko jëmee ñun xamuñu waaye usmaan Sonko wàcc na ci oto bi nga xamante ne moom la duggoon pour dugg ci beneen oto bi nga xamante ne ñu di waa GIGN ñoom ñoo ko indi.